moom résultat bi feeñ na. wax ñaaw la lan lu mu wax. sa bëgg waaye bëggoo sa rakk yi sa rakk yi bëgg waaye bëggoo sa rakk yi ñoo tax ñu aj ko trois mois rakkam yi ama seen di préparer Modou Lo une semaine de combat mu jaar nii dem dem taxu ji booy ñaa bi mu bi mu ñëwaatee dañ koo door mu daanu kon la de war na taxaw naan sa rakk la bëgg coowu Lac de bi moo ñu jural lii du dëgg. moo ñu jural lii daa maa ngi ci daan génn di ci wax ni ñi xamuñu woon fi ma doon wax tey wax ji mu ngi nii tey pikin waay tey dinañ ma nangul sama wax ji ne laa Lac de Guiers dafa jógoon pour tas suñu pikin tas na ko. mais est mën na tas pikin Pape Sarr. moo ko tas wax jooju moo tas lii loolu day tas réew. jullit du wax li mooy wax. mais aussi est-ce tamit mag ñi ay Pape Diop ñu ñëw tamit. wax ma ne la waxu seytaane weesuwul. nga wax li nga wax ci diggante Eumeu seen Boy ñaa Boy ñaa ñëw ci open press bi. loolu waxu naa fekk la sama frère la nag lak awma dara lu may teg ci kawam mais maa ngi koy won ni sa wax jooju tey moo ñu indi lii jaxase nga suñu pikin jullit du def li muy def li muy def nii du yëfu jullit li mu def nii tey ba xaajale suñu rakk yi tey Lac de moo indi lépp ak pikin waa yooyu ma doon moytuloo moytul leen ngeen yem suñu biir dégg nga léegi nag lan la ñu bëgg ñu bëri suñu biir loolu lañu bëgg balaa caag ma rocceeku nu mu gën a rafetee ma dem jàpp sama ñàmbur toog liggéey suma liggéey yàlla may na ma ay nit yàlla may na ma métier yàlla dimbali na ma am naa connaissance am naa ay nit yu baax dëkk ci kër famille bu baax yaa ngi may dégg si tey bu làmb amul woon barke Seydina Mohamed mun naa tabax cité billaay wal kitaabi. ça veut dire mooy sax xaalis da nga ko def si làmb lépp si ñoom. mais est-ce que ñu la koy rendre. non soxlawu ma ko. Ah waaw dama waaw bëgguma tegoog ñoom loxo voilà pour pour suba bu ñu defee erreur ma ñemee taxaw wax leen dëgg. ok waaye kii nii gàcce ngalaama. sama yaay de moo ma ko wax. su ma la gisee ngay topp kenn ku dul kii lépp looy ut yàlla bu la ko yàlla may. ah bon waaw parce que dafa dëgg tànkam ñëw ba Kër Lobaat mooy seul mbaru Pikine bu fat bu ko def. te man ak Eumeu Sène du tee man maam Sène la suñu maam Sène moo ñu yar. maam Sène mooy maamam ci biir kër googu dégg man ak alaaji ngom bii ñoo foowandoo ñoo màggandoo rakkam a ngi nii Modou Ngom famille bi par benn benn laay tudd ba mu jeex du dëgg moom laa gën a jege ci mbëri dégg nga Adama awa Adama Ngom ak awa Ngom ak ala ak ak Modou Ngom dégg nga suñu maam seena ñun moo ñu yar ñu dëkk en face kër Lobaat yaa ngi may dëgg loolu laa sëkk ak ëmma seen waaye du vedette wala mbër wala wala succès moom ma dugal si Eumeu Sène de man avant Eumeu Sène Alaaji Ngom la ak Modou Ngom billaahi wallaahi tallaahi dafa yàgg dadul tey dadul tey ok tey nag heure wax bi dafa jot damay wax awma ma benn mbëru Pikine nag boo xam ne dam lay teg loo xamante ne lu ñu lu tegoowul amul kenn ku ma ciy wax yaa ngi may dégg est am na mbër yoo xam ne damay taxaw si tele damay taxaw ci télé di leen kaasal te nii la ñuy nit xamu ko dañuy taxaw boo leen waxee benn ma génn si site internet dal seen kaw. mais loolu mooy jubawu leen. waaw. te yow foofu dañ maa respecté wul. te jiwuma leen loolu. mais doo tudd tur. du ma tudd kenn. mais ay mbër yu mag lañu. waaw yow dama ne la dafa bëri. Ah amul kenn ko même bu nekkee 5 17 sax defaral naa la ko. te te du ngeen wax. dégg nga waaw. mais man mais Baboy Baboy Giri Bordeaux. 832 mhm. 17 laa ko defaral. gaare buntu kër la ba 17 Ndiaga Ndiaye. 832 17. waaw. mais yéen a ngi dégg dégg nga kooku waa yow. kooku waa yow kooku bu ma ko fekkoon bu ma ko fekkoon àjjana safara dugg. kan Baboy waaw nit ku bon a ngi noonu. si ñooñu la ñu commencé ñoo indi lii yëpp. lii lépp ñoo ñu ko indil Pikine dañoo ay ba seen ay jeex seen rakk yi di bëri ñuy fël seen i tànk. dañoo ay dañoo ay seen ay bi ñuy ay ñun dañ leen a jàppale ba ñu retraité ma lay wax ni tey ki ñu dugalal roi des arènes jëlul horaire di uuti ji extrait oxygène lay uutee extrait. waaw d'accord léegi ñu wax si combat bi tey jii. dégg nga bomb ak sawaay waaw xam naa saa yu si combat bi. Mm-hmm. bombardier ak Eumeu Sène tey jii lan laaj. dal comme bu njëkk ba rek ñu jeex jeexaat. kese. mais moom da day jeex jeexaat mënul jeex jeexaat moom dafa ne door fayu ñun dañoo moom moo ko génneel Balla Gaye parce que daa daanoon Balla Gaye nee day jeex te ñun ñoo ko daanoon ñun dañuy jeex ñun it ñun dañuy jeex ñu ngi wax suñu mbër mu dal di ñaan yàlla may ñu ndam comme ñun ñooy dalal waa mbuur li may wax population Pikine ñu xam ne tey ñun ñoo dalal waa mbuur ñu def fair play buñ leen mënee jëlee ba ODK ba sax ñu jël leen dugal leen ci stade bi képp ku ci am lu sedd jox waa Mbour parce que tamit damay remercier Bombardier signé nañ moom moom Eumeu Sène contrat la ñu signé ñoom ñaar te kenn dépassé wul sa morom loolu man dam ko ci félicité bu baax a baax a baax a baax parce que làmb lii la saagante wuñu xasante wuñu xam nañ ni contrat moo leen boole ñoom ñaar ñëpp ay frère lañu may nuyu rakkam bu baax a baax a baax may sa ja rakku Bombardier la xalpulaar la may xalpulaar mais maa ngi ci Eumeu Sène li ma koy remercier mooy amul benn kàddu bu ñagas wala bu ñaaw bu mu teg ci deru Eumeu Sène Eumeu Sène noonu tamit mooy wan ni kon tey ñun loolu ñun ñaari mbër def ñun supporters yi ak ñi topp mbër yi ñun loolu la ñu woon loolu la ñu soxla dammaloo kenn sées xeexloo wuñu sànniloo wuñu wóolu nañu suñu mbër ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñun ndam jërëjëf ma nuyu bu baax. waaw kontaan naa ngi noonu ak tey dégg nga Pape Sarr lu mu wax mais day revenir tey fii ñëwaat si ñi nga xamante ne mooy famille bi yéen ñi wër mbër mi tey làmb ji fu mu toll nii daar daar ndax heure bi daanaka jot na ba pare yéen mi nga xamante ne tam nga papam nga tey lan la war a yóbbu tey lan la war a comporté woo ak lan la war a wax supporters yi ak lan la war a wane si stade bi. waaw sant yàlla rek comme yàlla may na ko mu fekkee ko moom a Bombardier ñoom ñaan ñëpp ñoom wér la ci des mooy ñu sant yàlla rek ñu ñaan yàlla may ñu ndam. ndax yàlla mooy borom ndam ñu ñaan yàlla nag yàlla may ñu ko